waaw man maa ngi tudd Matar Thioune euh, nekk membre de l'Alliance pour la République nekk aussi euh, membre aussi ci benn Bokk Yaakaar jiite coordination MENER muy mouvement national des enseignants républicains du département de Kër Massar euh, maa ko jiite di nuyuwaale aussi sama sœur bi nga xam ne moom mooy mun a Sissoko Khouma moom mi président aussi dégg dénk kuréelu enseignants yi au niveau national nekk aussi responsable APR au niveau de Yeumbeul Sud waa je pense que yaa ko waxal sa bopp mais man jàpp naa ne Omar Sow mënu fay jaxase dara Omar saw tuuti na pour jaxase APR Yeumbeul Sud Omar saw dama bëgg mu xam ne il est pour jaxase quoi que ce soit ici Omar Sow ñu ñoo ko gën a jekk ci jaxase te jaxasewuñu parce que bu dee légitimité ñoo ko ko ëpp ci parti bi bu dee aussi constance ñu ñoo ko ëpp ci parti bi te jaxasewuñu dañoo am discipline de parti toog moom il est venu très tardivement pour se faire un nom ici au niveau de Yeumbeul Sud ñun parti bi dañuy laaj amat Sow ba liste bi di dem ak dekkal ngor avec de maigres moyens di reyante bayam ay conseillers fan la nekkoon dañu koy laaj moom en 2012 bi ñuy reyante avec le PDS bi ñuy reyante contre le PDS qui était un parti fort ici au niveau de Yeumbeul Sud bay jox le président Macky Sall pouvoir bi fan la nekkoon dañu koy laaj récemment en 2019 bi ñuy joxaat le président Macky Sall deuxième mandat moom Oumar Sow fan la nekkoon donc dañ koy wax ne yam benn place su bëggee il veut faire un nom wala yaakaar na législatif yi il faut mu yëngatu. pour tout simplement le président Macky Sall boole ko ci liste bi nga xam ne moom lay députation ñi muy tànn bu fekkee yaakaar na lii moo ko ko bëgg a jox mu ngi nax sa bopp mu ngi nax boppam la wax rek Omar Sow c'est un c'est un c'est un comédien la man comédien laa ko jàppee parce que li muy def yëpp ay jeu bu dee jeune am na ay jeunes yu ko ëpp constance fuuf ëpp ko légitimité fii ci parti bi au niveau de des Mbeurzine lui il vient d'arriver Gabon la nekkoon su bëggee légitimité na dem Gabon ñun nag jàpp nañ ne attaques yi muy def jàpp nañ ne te moom xam na ne ñun xam nañ ne am na ñu nekk ci ginnaaw parce que tout simplement c'est des gens yoo xam ne tapis dans l'ombre yu koy financé muy def ay action sociales am di ci profité di xas nit ñi ak saaga nit ñi ñun xam nañu. dañu koy wax na yam ñuy interpeller aussi le président Macky Sall di ko wax ne ko buy falati na xool ñi muy fal parce que man damay laaj est-ce que vraiment enquête de moralité bi ñu doon def ci wàllu avant ñuy nominer kenn ñu ngi koy def ba léegi parce que je pense que bu ñu defoon enquête de moralité ah dinañu xool vraiment bulletin médical u saw parce que koo xam ne bu subaa mu zone bu subaa mu vert barki démb Ndiaye la ñëw di tàgg le ministre Amadou Hott devant tout le monde élection yi passé fii la toog après résultat yi fii la toog di jooy di tuur ay rangoon non non Amadou man je suis déçu parce que yaakaar moon ak liggéey bi ñu fi liggéey dinañu gagné mais incha allahu rabi waña ñii waña ñaa mais suba nga ñëw sax ay mel nii du yow dañ koy wax ne ko na yem bu dee légitimité ñoo ko ko ëpp fii ci parti bi bu dee liggéey ba ñuy liggéey ci parti bi moom liggéeyul ñoo ko ëpp base fuuf dañoo toog lem suñu genn donc dañ koy wax ne na yem et il n'a qu'à venir se ranger su ranger wul waxuma la sax réunion mais assemblée générale sax dootuñ ko ko may mu fekkee ko il n'a qu'à il n'a qu'à se taire bu mënul am discipline de parti ñun dinañ ko war nekkoon ko de parti moom mooy dox fii ci suñu parti dañ wax ne ko na yam koo xam ne il n'est pas constant bu subaa mu mel nii yow ki barki Demba Ndiaye nga toog fii tàgg le chanter le louanges de Amadou Hott bu subaa nga ñëw taxaw fii euh, mel ni sa waay comme si de rien n'était dañ koy wax ne ko ne yam bu dee légitimité ñoo ko ko ëpp fuuf te dañoo toog am discipline de parti li mu man mën nañ ko li muy def ñun mën nañ ko on peut le faire su yaakaaree na nag lii moo tax moo ko mën a mayndam mu ngi nax boppam bu yaakaaree ne il faut mu def du bruit pour tout simplement président Macky Sall jël ko en compte def ko ci liste yi il se il est en train de se tromper ñun nag on appelle on lance un appel au parti et au président si le président ne prend pas ses responsabilités si le parti ne prend pas ses responsabilités yamale ah yamale Omar saw xale bu ndaw la ëpp fi kenn légitimité ëpp fi kenn jàng donc bu ko buñ ko bu amee chance ñu def ko conseil spécial noo comporté wu comme un conseil spécial. non xam nga actuellement dañu nekk ci phase de réconciliation boole famille Benno Bokk famille APR bi d'abord boole aussi famille Benno Bokk Yaakaar bi donc ñun actuellement nekk guñ ci waxi kan mooy jiite coordination ak ko dul jiite mais je pense que tey ce qui urge mooy limiter. booloo nekk benn le ministre Amadou Hott mu ngi bay waaram ci département bi pour dajale le ministre Assome Diatta aussi mu ngi bay waaram ci dajale pour ñëpp nekk benn mais également l'honorable député maire Moustapha Meng moom aussi vraiment mu ngi bay waaram ngir ñu nekk benn te ñoom ñëpp li leen yitteel mooy le président Macky Sall ak vraiment la victoire final lors des législatives je pense que loolu moo urgent mais c'est pas vraiment ay euh, euh, intérêt crypto personnel actuellement moom moo poussé. je pense que mouvement des enseignants républicains du département de Kër Massar bi nga xam ne maa ko jiite moom yàgg na bay waaram vraiment ci ci ci loolu boo xoolee élection locale yi weesu ñun ñooy doon la seule structure boo xam ne ñoo dem ci vraiment euh, tous les investisseurs de Benno Bokk Yaakaar yi président joxoon. récépissé dem aussi apporter leen suñu soutien également aussi lancer un appel à tous les enseignants pour vraiment ñu soutenir leen demoon nañ ci Amadou Hott jóge ci moom dem ci Assome Diatta jóge ci Assome Diatta dem ci Moustapha Meng jóge ci Moustapha dem ci Mokhtar Meng jóge dem ci Talla Gadiaga jóge fa dem ci Daouda Ndiaye jóge fa aussi dem ci euh, euh, euh, vraiment Maodo Malick donc ñun on a on l'a on l'a on l'a on a toujours œuvré vraiment pour limiter gis nga parrainage yi aussi ñu ngi ciy liggéey les enseignants pas plus tard qu'avant-hier un enseignant est venu me remettre un lot de un lot de cent parrainages donc rawatina aussi vraiment ñeneen ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy liggéey ci loolu parce que nous on s'est fixé comme vraiment quota mille parenage donc euh, actuellement nous sommes en train de collecter les en les les parrainages te bu ci buñ ci paree aussi dinañ ko jox vraiment euh, responsable yi nga xam ne moom moom ñoom lañ ko war a jox.